maa ngi lay nuyu waaye nag di nuyu doomu Pawal Pawal bi waaw maa ngi lay nuyu bu baax a baax tafaati di nuyu Pawal Pawal yëpp. waaye mbokk yi bés baa ngi nii ñaari xale yi may jox micro nag dafa nekk ñaar ñoo xamante ni ay daanaan la ñu wax nekk ci des lu muy def nii ah Lamine Samba. dama la rek moom dafa chiqué ba bu mu ñëw Lamine. sama papa Thierno Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax sama papa ndeysaan loolu mën naa nekk ndeysaan baba nga may sa baay lu ay doon lu mu dëgër alburi téen nii nag te nga téen lim téen lu bi te taxaw te déglu ma ma bàyyi leen ngeen nuyu ngeen nuyoo ak mbokku téléspectateur bu ñuy seetaan ñu Télé Futurs Médias Père Max nuyu naa la bu baax Assane Ndiaye Bawol jërëjëf Kéwel maa ngi lay nuyu lay fay naka mu gën a sant la julli ci yoon ñuy sant suñu ñaari waay di sant euh, promoteur bi Assis Ndiaye Baye Ndiaye nuyu Lamine Samba Pour suñu père yi di nuyu suñu grand Fatim di ko ñaanal jàmm ko ñaanal di nuyu suñu grand Assel sama entraîneur Baye Fallou sama grand euh, Assane Ndiaye Daouda Ndiaye père Massi père Babou ñoom père Baye Diagne sama menacé la ba woon ñoom ñëpp maa leen di sant di nuyu sama adversaire di ko ñaanal jàmm ba le 12 novembre ma toog ci kol bi euh, di nuyu sama benn grand Malick colonel Malick Mbaye. Mm. maa ngi koy nuyu bu baax borom Medina. Mm. di woo sant waa Medina bi yëpp. incha allah di sant sama dama dama bëgg léegi ngeen jàkkaarloo yéen ñaar. Alboury Birame Penda Ndiémé. léegi cukkili cukkili ñu ngi laal ñu ngi laal Serigne Serigne Ndiaye mm-hmm. sama ma bu noonu teet bi. Mm-hmm. maa ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay fay ba biir kër ñëw béykat seen fay. di nuyu ñu toog fii ñëpp. la di nuyu ak euh, Baye Ndiaye mi teg di nuyu si ñaari champion yi Tapha Tine ak Ama Sène Tapha Tine ak bàyyi bi ndam di nuyu ñëpp xam yi nekk yëpp ndax ñoom fexe nañ ba bokk ci lamb ndax mën am amateur yëpp ay Bawol Bawol la mm. kon nag ñu ngi leen di sant ñoom moom lamb bi pour le sang mm. ndax amateur yëpp ay Bawol Bawol la macha allah voilà di nuyu grand bi di ma dëkk Tidiane Diallo ah euh, di nuyu ñëpp bépp autorité bu fa nekk xam nga di di nuyu Jolof. ñu ñu Jolof laa dëkk dama nuyoo Jolof waaw waaw di nuyu waa Jolof ñëpp. nuyu waa Jolof bàyyi ma la bul nangu di la wax. non dañuy nuyoo. non garaaw bàyyi ko mu waa Jolof. dañuy nuyoo nuyu waa Jolof. parce que nit ñi wi ni maanaam. ñun ñooy neexal làmb ji. kon nag dañ ko war a bàyyi ñu woote. ñi ñuy woo. waaw ñu dem Sénégal lañ nekk duñ may muuma. waaw damay wax ak nit ñi. communiquer ak ñoom ci télé bi. dëgg la ñu teral la. dëgg la nga jëmee xale yi bee. ñu laaj voilà di nuyu ñëpp ñu ma ànd ak ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. waaw di nuyu kiiwam yi ma sama adversaire ma respecté la wax dëgg yàlla. waaw di ko wax nag am na problème. di nuyu Mamadou Yana Sall waaw Mamadou Yada Saay. mais ñu dem signature campagne président am ak yooyu. waaw Mamadou Yada Saay maanaam une jeune. une jeune waaw nouveau président maa ngi lay sant bu baax a wax di wax damaa bëgg nga jàppal ma ci combat bu baax yaa ngi ciy jàpp mais damaa bëgg nga gën cee jàpp. waaw nuyoo na nu laaj ma ma tontu la ma cootu cootee kii waxal li ma ko wax. bés bés bi ba Baw bésu Baw Baw la yaa ko wax léegi ndax Bawal ñi ciy bëri parce que am na ci cinq combats Bawal ak li mu nar a ñëwee loolu ci bés bi loolu dugal ci ci ci kéwél dara dugal ma ci. Mhm. maanaam bu it ci terrasse wala nga yëg ci garab. foog nga jaar ci suuf. Mhm. lu mënta ñàkk la dafa bokk sama yoon. Mhm. mais yàlla xam na ne euh, sama bët teg ma ko tax ci moom. waaw kon nag ku yoon bi moom foog foog foog foog dafay war a jaar rek incha allah bu ba euh, kii nga xamante ni champion la boo xoolee saison bee lu génn ak bii bëri yëpp. victoire la ci yàlla sédd. bu la ko man man ku ma xamul ku ma xam xam ne ay ndaanaan rek laa daanu. Hmm. waaw kii mën naa ne ñi ma daan daanu leen. Hmm. man mbir yi ma bëri daanoo leen. Hmm. kër maanaam yow. dëgg la ñoo daan daanoo leen. bëri nga ak champion yëpp dama la kaa nangul moo tax ma jël la. waaw tax ma xam ne yow. Tidiane Faye ñoo ko ñu bëree. Tidiane Faye laa ko ay match nul ak moom. Mama Lamine ñun ñëpp bëri na ma ak ñoom. waaw bëri na ak ñëpp waaw bëri na ak ñëpp ndax maanaam. yaa ngi tudd na ko kii moom boo ko jëlee nga xam ne am na ko sama yoon day wax. wax dëgg yàlla boo ko tuddee boo ko yàggee teew rek. wax dëgg yàlla lu ne di ci dugg. nee na bu la may saaf bëri nga ak ñëpp yaa ma may saaf loolu dama la koy nangul. yaa ma may saaf kii woon mag nga màgget nga. yow yaay magat mi nag. màgget nga yow nee na yaay magam yow. gisoo lii moo yéen a ngi lonkante di yow lonkee suur ba sànni yaa ko mag yow. eh yow màgget nga. yow dëgg yaa mag nga. yow yaay mag yow. Ah, jaw fara muy maa jaw fara altine la ak man de dama yaakaaroon ni sax. altine la altine la rek waxal. man xanaa bu ndaw laa te yow magum jëmm nga. Eh, bis bi lan ngeen ku jaay ku jaay téeméeri mag màgget nag. damay déglu ku jaay téeméeri màgget nag bu ne sama maam. bàyyi sama maam dee na bu yàgg moom sama maam xale bu kilo damaa bëgg nga déglu ma maam dee na xale bu ne la sama maam nee na da ko war a déglu sama maam dee na bu yàgg yaa ngi bëri wax dama la respecté trop yàlla wax na ci bàyyi sama maam suñu combat bi incha allah maa leen ko fi wax kii bu xeexee dina ma taxal dara abri la wax abri mi la wax yàlla xam na ni combat bi maanaam wuyu ko ci juróom ñaari bambara yi tam foo toll da ngay dégg fii ci biir ci biir. Alboury nee na musul waat ci lam. déglu ma fii Alboury. waaw musul waat ci lam. waaw boo taxawee. barke Serigne Bamba ma duma la boo bëree ma daan ko. du ma am la. waaw dëgg la yàlla. bisimilah asin. yàlla xam na ni damay taxawee. barke Seydina Mohamed ma door la boo bëree ma jàpp la daan la. Kewel yow yow laay laaj doo bëgg a daanoo. yow mii arbitre sifflé na. Alboury Kewel Kewel Kewel Alboury Kewel Kewel daanu loolu. li nga wax commentaire eh commentaire baa ngi nii. Alboury Kewel Alboury Soumé di Kewel def na ci kaw Kewel Alboury jàpp na ko daan na loolu ngay dégg. Kewel maa maa ko toog Alboury eh. maa la gën a féete xale. Eh, doo waat te bu Alboury Soumé ba doo waat yow. am na ko doo waat li ngay wax tegoo ko fenn. bëgg nga xam li ngay wax tegoo ko fenn. lu ko waral maanaam man man man combat bi combat bi su ma la daanee sax ma ko suñu. di nuyu sax bu baax a baax sax Bamba Général. sa jigéen caajaay bi moom kenn du moom ci voilà di nuyu Ousmane Sy Ousmane Sy si Dieng Mer kenn du moom ci. Eh, yéen ñaar kan mooy dirigé combat bi yéen ñaar ku njëkk a xeex bu at bi génne seen diggante. dina amul tuuti waaye toog ci kaw maa koy jàpp maa koy daan. xale ak moom eh, bokkul. nay leer de. yow boo doon bant maxe nga boo doon alphabet loolu da ngay ma alphabet. suuf de Dakar du sax ñaari yoon. góor du ma duma. dama la ko bëgg a wax. Eh, la douze dëgg la man ku ñëw man ku ma fekk ma lay arrière di la dalal di. arrière ko la man may jolof jolof pire la ji. may bawul bawul. ma bàyyi leen su ma la jàppalee li ma bëri sama gis baa ngay woote mu gaaw. woote non sax keroog dafa ma wax lu ma métti. lan la la wax mu ne ma man damaa bëgg jigéen loolu moom moo ko. Eh. loolu la la wax. mais li mu la wax kay garaaw tamit góor bu bëggul jigéen lu muy bëgg. non non non kàddu boobu ah. waaye dof kenn xamu ma ci yooyu kenn xamu ci yooyu. du ma ko ci topp. non man kenn xamu ma ci yooyu. Alboury Alboury Lamine Samba man lekk yàpp. daam lu ma lay wax. naam meew laa xam. question la lay posé. li nga bëgg rek du ma la topp. yow waxi dof. Alboury yow question la waxi dof. waaw yow bi barki Seydina Mohamed yàlla na ma bëgg la. may ma jàpp Alboury di nga tëdd. Albury buy Lamine buy Lamine. Albury di nuyu waa Kaolack la a déglu ma man maa ngi sama ma da ngay respecté les daan musuma daanu allah loolu moom la Ah. Ah, bis lay daal bis bu daara jotee dinaa daal. nga ne maanaam daanoo ko. daanoo gu ma ci àddina. daanoo gu ma ci baatu. daanoo gu ma ci néeg daanoo gu ma ci tool. waaw wuy ma wala léegi waa léegi de. waaw déglu ma. déglu ma wuy ma. moom nee na mës na daanu. waaye teel a daanu xanaa fii lay daanoo. fii la tuuti nag non mais tuuti naa tëdd mais sa kaw laay tëdd. loolu la maa bëgg a nangu ko. Eh, booy daanu may tëdd daanu. kon kon adduna le douze dinañ la yóbbu. le douze dina mel dina mel ni su bugaange bu doon fekkal day jàmm a jox. donc saa boo daanee ñoom ñu aanu dem. su ma daanoo bàyyi ma xale ma taw ma sax kit kit kit. ayca bàyyi ba la jërëjëf. bàyyi ba la jërëjëf. ma baale leen woote leen mu gaaw. bàyyi ba la kii ngeen woote leen merci jërëjëf. nangul bi woo waa Kër Massar bi baax a baax. di woo Kaolack di woo Kaolack. Moussa Diama Moussa Diama Mbaye maa ngi lay woo bu baax a baax. di bu baax a baax. waa Lat Diop Lat Diop Lat Diop jërëjëf Lamine mënu maa ñëw fii tëgg ma nuyu sama PDG As Dekay Mbaye. jërëjëf koy nuyu bu baax a baax baax. di nuyu baax Moussa Diouf mon frère. tey tey bu ma Dia Diop Samba Mar. Samba Mar maa ngi lay nuyu jërëjëf jërëjëf. dañ ko dégg tey loolu ci culture bi la bokk. la bu ñu ko waxee rek culture bee tax. jërëjëf dina wayal Dia Diop sa sant rek a naqari li ci des yëpp baax na ci yow. rapidement bul fàtte ni bul fàtte ni ñii ah publicité lañ jëm dañ dem. acca ñëw gàddul say micro. ñëpp toog bu ne toog naa waaye heure añ rek mu gàddu ay yére noppi. daal di heure bu ma yekkee sama añ mu ne mes maa ngi kër Baye Ndiaye dama bëggoon xam lan mooy problème bi. déglu dëgg. dégg dëgg waxal ak ñoom. xamoon na secret bi coow mi coow mi lépp la lii la riz j'adore. toggee sa jëkkër yow rek lay togg may woon audience le 8 mai ñu dimbalee pour ñu am coopérative d'habitat waxoon na it ne danañu dimbalee pour ñu am ci wàllu tëgg làmb ak tëggaat jàppale promoteurs yi ci benn fonds bu ñu woowee benn fonds ci fonds ji du 500 millions ñu juróomi téeméeri millions boo xam ne promoteurs yi ñoo ko moom waxoon na it danañu jox 330 emplois yoo xam ne moo ko seenalu bopp ci biir